ñu bayyi xel bu baax yàqante bi yàqante bi ci biir mbokk gi def na lu bari bari na ñoo xam ne tey yi génn nañu àdduna yàlla rek mooy jële fii nit nee nañu bësab dund bësab dee waaye bësab dee du bësab dund waaye am na ñoo xam ne ci ngor la ñu dee am na ñoo xam ne ci gàcce la ñu dee bu waroon a defaru ñu yàq ko ndeysaan borom borom njaboot yow mënoo xaaj sa bopp njaboot gi ñoo mën a xaj ci yow ñu dox sa diggante njaboot googu ba nga xool ñuy bañante si sa kanam te amuloo ci pexe nga dee ak xar gàcce la nit li gën ci moom rawatina muy ñi nga xam ne du dañoo gëm comme Sénégal bi gi ñooñu mooy boo defee démb loo xam ne du noonu nga toog nga seet ne lii du noonu te yow fii nekkuloo fi dem demeet faw benn bés rek nga dem nga jéem a góorgóorlu li la fi desee nga jéem a xool li nga mën a soppi ci sa bopp man gëm naa ne loolu mën naa nekk ndax de yàlla moo ñu bind ci mbaax waaye nag gis nga yàlla bu la bindee ci mbaax wàcc na ak yow la des nag mooy yow nga suuxat mbaax googu nga sàmm ko koo gis rek nga ne kii moom a gën mën naa nekk xam nga lu tax ndax xam nga ci sa bopp loo xam ne xam nga ne buñ ko xamoon adduna tukki waaye moom xamaloo ko dara nga rafet njortu ci ne dara googu ma ko xamal yëpp mbaax la bu ko defee nga mën ko may chance pour mu wax la nga mën ko may chance pour mu jëflante yow ci mbaax man daal maa ngi ñaan yàlla yàlla dimbali nu ci loolu balaa muy am nag faaw ñu oyof balaa muy am faaw ñu bàyyi it kii daf may jaay affaire lay jaay mun la jaay dara di nañu bàyyi yooyu kii dafa xamul ma xamul boppam yooyu yooyu yooyu du mbiri nit nit da ngay xool nit nga xool ko fu kawe ndax yàlla moo bind nit fu kawe yàlla mi bind nit fu kawe nag boo kaweelee nit mu kaweel la boo suufeelee nit mu la li daal laa ne lu mu gàtt gàtt mën nañ koo wax ci ñaax yoo xam ne mën nañ ko ñaax suñu bopp maa fi gën a yées man mii lii may wax man maa ngi maa ngi xaacu pour ne bu soobee yàlla dinaa toog Baye Dame Diouf mii bu ma ko gisatee ma xoole ko ne ah Baye mii moo gën Pod mii boo ko gisatee ah Pod mii moo ma gën monsieur Zeyna boo ko gisatee kii moo ma gën ngir lay mbaax ca ñoom ñu mën ko séddoo ak man gëm naa ne ku nekk yàlla def nag mbaax ci yow waaye nag ka ko séqal moom mooy am chance bu boobaa maanaam mooy nekk ku am wërsëg bu boobaa yàlla may koy jikko nee nañ ku ñemee dañu laa déy balaa ñu lay layu déy faaw ñu wóolu la nit ki balaa mu lay wóolu faaw mu am cofeel ci yow lii daal lu mu gàtt gàtt naa ko nuyoo ñu ngi may maa ngi jégalu gudd na lool waaye yéene rek moo mel noonu yéen ñëpp ñu ngi leen di yéene jàmm asalaamaaleykum. jërëjëf Thiam. yéesu ni nga xam ne wig bële ci la ci lañ doon célébrer dunaam ci àddina ñëwam ci àddina dafa ne bugal sa sa morom ni nga buggee sa boppa soo buggee sa boppa ni nga buggee sa morom. yow doo jël sa bo sa paaka jam ko sa boppa yow doo sàcc sa eh, doo sàcc sa sa sa boppa doo def dara loo xam ne dina la metti yow ci sa boppa ndem yow mun loo ko def sa boppa mu ne bul ko def keneen mm-hmm. nit ñi ne ko ñam doon waxtaanal kan mooy suma niibo mm-hmm. kan mooy seen ma niibo nit ñi laaj ko mm-hmm. mu ne leen dafa amoon benn waay dafa jóge woon dëkk from Jerusalem di dem Jericho mu ne eh, nit ñu bon yi dajeek moom dóor ko sàcc xaalisam gaañ ko mu tëdda di bugg a dee mu ne eh, ki nga xam ne moom la kooka moom la bokkal moom la bokkal eh, geño religionam bu mu bokkal kooku gis ko mu ngi tëdda mu gis ko rek romba ko dimbaliwu ko geneen nit ñëw gis ko fam tëdda daw gi ko beneen nit ñëw koo xam ne ñoom seen seen geño duñ dee laalante hmm. kooka gis ko kooku yërëm ko waaca ci fasam dal di ko jël eh, dal di fompa deret yi daldi ko teg ci fasam bi yóbbu ko ci lopitaan ne kii maa ngi ko fee bàyyi toppatoo leen ko loo leen ci mën a def ndax mu jóg ngeen def ko man maa ngi tukk maa ngi dem dëkk bi su ma dellu si waatee li ngeen ci ma def dinaa ko fey yéesu gestu ci ñum doon waxal ne ñette ñette ñiy romba nii kan mooy mbokki kii ka ko dimbali ka ko dimbali mooy mbokkaam de waaw mu laa woon nag ne nit ki koo gis rek yàlla moo ko binda dimbali ko because yow su doon daf la dal su doon ñooñu lañ la dóor di nga bëgg ku la dimbali de kalaa dimbali nag mooy sa mbokk mm-hmm. waaw ñun yàlla bindee nañu noonu dañ dee yërëmante dañ dee yërëmante yërëmante bi ñuy yërëmante ci suñ réew moo tax jaama ñi ñoo ut am e ñu jógee ci Christmas ñu ñëw ci New Year bi New Year bi nag moom ñëpp ko bokk muy sëriñ muy gourmet muy euh, wat loo mun a nekka ñëpp ko bokk lu ko New Year bi dafa ñëw pour ñu mun a ñëw toog seet suñ bopp lan lañ def ci at bi passé ñu seendal li ñu def ci at bi passé lu ñu jëriñ la lu jëriñ suñu réew la lan la ñoo mën a def ci at bi di ñëw nii ndax ñu mën a gën a jëriñ suñu boppa gën a jëriñ suñu réew gën a jëriñ suñu jaboot moo tax woy bi eh, happy new year ñu ñoo daayoo moom laa buggee ñuy woy ko ba pare moo mun a continuer happy new year mi noo daayoo eh, kenn bëggul a de soo toogee nag ba at bi jot ñëw danga bég ne deewuma léegi deewuloo yaa ngi ci àddina lan ngaa def pour jëriñ sa boppa jëriñ sa réew njëriñ sa jaboot happy new year ñu noo daayoo lifin yi méthodistes eh, yi dañ dee am Christmas eh, new year dañ dee am eh, service twelve o'clock service bi jeex su ko defee su ko defee seen eh, xale yi ñoo daan génn di wóor ci dëkk bi di yuuxu di wëy happy new year wi noo daayoo su ko defee ñëpp toppa ci Banjul daf daan neex xale yee daan wóor jógee Stanley Street ci cooj bi foofu wala ñu jógee Dobson ci cooj bi dugg si ñoom Haddington ñoom ñoom euh, Stanley Street wóor ñoom McDonald di wuy happy new year ñu daayu su ko defee ñi demuloon Lovell Square mhm. ñi demuloon cooj bokka ci su ko defee from that time new year bi door na de mhm. from midnight ba one o'clock midnight dem one o'clock new year bi door na coow li ne kur woy ne kur ñëpp bokka ci mu mhm. nekk sëriñ mu nekk gourmet su ko defee ñëpp xam ne ñuy yëpp bi ñëw na mhm. te deewuloo bi ko dégg nga wuy bi woo yaa ko wuy mhm. waaw man la Hélène ah. maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp ci seen programme bii nii su may daf dee kontaan trop ajuba bu nekk daf dee ne ba kaas fa wa am na mhm. pour ma seetaan programme bii nii su ma fa nekku sax daf maa ne ma ah dégg nga programme it ñoom ay da lii lañ wax de lii lañ wax démba xale yi war nañ di déglu di taataan ci ñii nii te ku leen bu déglu àdduna si dina neex te dina naat ñu ñëpp dinañ juboo nekk benn yéen ak ñoo dimbale ci suñ njaboot gi yéen ak ñoo dimbale ci suñ kër yi pour naka la ñoo toppatooyee suñ njaboot gi naka la ñoo dem ak suñ morom yi ak suñ dëkkandoo yi ñun soppante nag soo déggee nit ak moromam da ngaa njëkkaa soppa sa boppa ñu ne soo soppee sa boppa dinga nga sa morom te foo naa ku nekk soppa nga sa boppa am bañ ne bi am woy boo xam ne sa dañ ne soppante leen te jàppante loolu la borom bi wa uh-huh. am na fu cofeel ak xarit ne mu ne mm. yàlla mu fa mm. léegi sëriñ ak gourmet man maa ngi jógee Serekunda soo déggee Serekunda suma maamaati maam yi ñoo ko moom danga am maam Jilaan Njaay ak Kuma Njaay lay sax maam Jilaan gourmet la Kuma Njaay di sëriñ mm. Kuma Njaay moo jur Moodu Siise maam Jilaan jur Okiki Davis bi ma jur man suma pasa si sëriñ la dee te am na i raka yu nekk sëriñ am naa im nijaay yu nekk sëriñ ak i maam yu nekk sëriñ mhm. foog naa ne sëriñ a gourmet mhm. dañ ko fi fekk ci mu nga doore ci maam Adama ak Awa mhm. foofu la doore ñun ñëpp benn lañ yëpp li yàlla yi dafa wax ne soppal sa moroom ni nga soppee sa boppa soo soppee sa morom nga xam ne yow sa morom su demee su la jamee paaka comme ni ko onk George waxee soo yow doo jël paaka jam sa boppa konte doo war a jël paaka jam sa moroom doo sàcca sa boppa konte waruloo sàcca alali jàmbur yëpp te yëpp yëpp yàlla daf ñu ko tegal yëpp lii yëpp daf ñu ko tegal bul mooy bul fen xam nga yooyu yëpp soo ko defutee di nga juboo sa morom mm-hmm. bëgguloo ku la fenal soo doo fenal kenn foog naa daal ñun ñëpp dañ war a góor góorgóorlu ci at bu ees bi ñu dugga nii loo xam ne nekk mel ni comme man xalaatoo naa ne at bu ees at bi ñëw nii dinaa def lii ci lu baax yal na ma ko yàlla def lu waaye loo xam ne itam maa ngi doon xalaat di def yeneen yu aay yal nañu ci yàlla musal mm-hmm. waaw ñun ñëpp nañ góorgóorlu daal seetaat suñ boppa ci at bu ah. ees bi waaw léegi nag dama bugg a suma xale yi ñu wéyal leen soppante leen te jàppante